mbokki jullit yi mbokki taalibe yi bu ngeen gisee jataay bu tedd bii da ngeen xam ne lu mag xewatina la daan xew at mu jot euh, muy ñaar fukki fan ci weeru tamxarit di bis bi nga xam ne ci la Cheikh Mouhamadoul Moustapha indee woon Serigne Touba Khadimou Rassoul ci dëkkam bi mu gënoon a bëgg jataay bi ci fu Serigne Ahmadul Muxtaar Mbakke mi nga xam ne mooy xalifab Cheikh Mouhamadoul Moustapha ñu ñaan suñu borom gën ko fee yàggal te wéral ko te mottali ay naalam mu ànd ko ak doomam ak i sëtam ak taalibe yëpp ak seex sépp ci kilifteefu sëriñ Mouhamadul Muntaqa muy jëwriñi seexul xaddim ci ndigalul sëñ Ahmadul Moxtaar mii ko nekkal ci Daarul Xuddus di jëwriñi seex Mouhamadul Moustapha mu ngi yëkkati sunu kàddu di fàttali bis muy fukki fan ak juróom-ñeent di ñaar fukki guddi ci aw tamxarit di bis bi sëriñ Tubaa fanaan see ci dëkk bii dëkkaale ak boroomam Cheikh Mouhamadul Moustapha waxoon ni bu ñëwatee nañu daje fanaan si ci dëkk bi ñu jàng alxuraan jàng xasaayit def salaatu ala nabi def istixfaar bernde boroom xam-xam yi dimbali ñi xamut ñi am doole ñu am wërsëg dimbali néew ji doole yi mu wax ni ko fi fanaane pas-pas boobu boo xëyee mel nga ni liir buy door a judd ci seet wecc ci ay bàkkaar bis boobu yi la fàttali mboolem umma islamiya bépp di ko fàttali mboolem ñi mu seqal lislaam jëpp rawatina njabootu Sëñ Tuubaa gi di ko fàttali itam njiital réew mi ak ñi mu bokkal gouvernement bi ñëpp ak ñiy laaj réew mi ñëpp te jotaguñ ci bis boobu yi nag ay bis bu am solo boo xamante ni nii sëñ Modou daana ko gàttandoo ab set setal muy bale dëkk bi loolu itam sëñ Ahmadou mi ngi koy fàttali mu war a doon le 21 septembre Sa yuñ ñu tuddee set setal nag nit ñëpp seeni xel dana daw jëm ci barab yi mbal di daje ak fu ay këyit di daje waaye sëñ bi daa bëgg ñu jiital ci xol yi ndax mooy ndab yi suñu borom di sotti aw yiwam te yàlla du ndab du yak ci ndab lu taq te ginnaaw sëriñ bi daa wax ni faaraxtu iblisa wa jami al mafasid képp lu bokk lu bon topp ci gannaawam yaa ànd ak moom waaye sëñ bi ànd yow te nit su ngeen àndut man naam soo wuyu mu bëgg ñu jiital xol yi ci raxas ko bam seet wecc teg ci suufu dëkk bi ngir teertoo ko bis bi nii nag ci ñu ngi jël suñu kàddu di ko yëkkati ci turub turandoo Cheikh Amadou Moustapha ci njiitu Cheikh Amadou Moustapha moom sëñ Saliou Mbacké ak sëñ Moustapha Massamba ak sëñ Moustapha Abdou Khadir ak sëñ Moustapha Abdoul Ahad ak ci turu Cheikh Mamadou Moustapha moom sëñ mbakki Madina mi nga xam ne mooy mooy suñu njiit ñun nag am ci taxawaay boo xam ne sëriñ bi moo ñu ko jagleel muy taxaw gi ñu ci war a taxaw ci bis bi kep kuy taxaw ñun nga ci ñun nga ci wara a ndax ñoy borom bis bi fasiyene tambali ci ni ko sëñ tubaa santaane woon mooy njàngum alxuraan ñi ngi bëgg wépp turando wo xamni ne yaa ngi ñu dégg kaddu nga jangub kamil jox ñu sa sa ak fo dekk ñu def ko addi Cheikh Modou mustafa buñ ci joggé fas na amal ab siar fi ci kanam sëriñ bi moy buñ né gannaaw suba la magal gi buñ ci joggé yit fas na yéene togg ay ay berne yu andi ko fii jàppalee ko sëriñ bi ci gan gannaaw loolu it ñi ngi leen soññ ci liggéey bii nga xamante ni moom lañ tàmbali mu di bâtiment bi nga xam ne moo nekk ci suñ ginnaaw ñu toll ci war koo finition nga xam ne toll nañ ci karo ko ak war koo defar ba fas yéene ci dalal gani sëñ Touba yi di ñëw ci màggalu sëñ Touba gii eh, tey nag ñu ñëw fii ci wetu suñu waajur suñu kilifa suñu sëriñ eh, Baye Ahmadou Makhtar Mbacké mi nga xam ni mooy xalif Cheikh Mouhamadou Moustapha waaye itam mooy xalifab Cheikh Mouhamadou Lamine Bara jëwriñam ji nga xam ni moo ko nekkal ci njabootu Cheikh Mahoulène Bara muy Cheikh Moustapha am Cheikh Sidi Makhtar Mbacké mu yabal ñu fi man ak sëriñ Modou Bara mii ngir ni ñu ko baaxoo def lépp lu am ci ñaari kër yi ñu ànd ko taxawu ko moo tax ñuy woo jullit yëpp bàyyiwuñ ci kenn njabootu cheikhul xaddim gi taalibay cheikhul xaddim yi cheikh yi rawatina njabootu cheikh moo leen baare gi nga xam ni dañoo tënku ci ginnaaw sëñ Moustapha muy sàkku ci ñëpp ñu ànd ñu ñëw ànd ak taalibe yi bis bi ànd ko ci ak bàyyi al maxtaar ni nga xam ne ni la ko bëggee ñun ñëpp ñu taxawoo ko noonu sëriñ bi nag ni mu ko daan taxawoo mooy cheikh Moustapha mi nga xam ni alkarim mi ko jëkk woote mooy njàngum alxuraanul karim xasida iti sëriñ bi julli ci yonente bi ali isalaatu wasalaam kenn ku nekk ka nga nga dimbali ko ni ko sëñ Ahmadou Ndiaye ngi daan waxee léegi kon nag noo ngi ci woo ñëpp sakku ñëpp teew te te ñu yaatal gan ñi dalal leen lépp lu ci waay man ci man-man nga def ko xeetu man-man bu ne muy alal muy xalaat lu mën a doon loo xam ne doxal màggal gi def ko te ngi di ñaanal di ñaan képp koo xam ne kii teew na fi yàlla fa ci sa aajo bis boobu mooy ban bis bi Cheikh Ahmadou Bamba yagona a waaj muy ñëw waj ali al mawt raxatin wa mafraxatan min kulli charrin wa karbin daaxaya laahu loolu wàccaayu bis bi la woon jiitu bis bi ñëw allahumma ijal khayra ayami yawma alqaak serigne touba daana wax te bis bi agseegul won kon bis la bo xamni serigne touba ci bopam moko yag waajalal jëkk bis bi di ñëw kon bis bi nak mo delu ci wat muy bis bam mu digal Cheikh Mouhamadul mustapha ni ko bu liggéey bi àggee ndigal la Touba la Cheikh Moustapha al Karim Serigne waajal ko ci jikko ci pas-pas ci fit ci jom ci ngor ak dégg ndigal ak xam lan mooy sëñ Touba ak waxi sëñ Touba mu téye loolee ko sëñ Touba waxoon bi liggéey bi matee mu defal ko Cheikh Ahmadou bamb nam ko bëggee woon indi ko fii Touba taxa damul bis boobu nag war a fukki fan euh, euh, euh, fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru muharram guddi ga ca topp di ñaar fukkeelu guddi ga muy gaaw war a e, ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru septembre fii ci Touba Daaru Xuddoos ak ci Touba gi yépp kon mbooloo mi e, kàddu yaa ngi noonu bis baa ngi noonu fukki fan ak juróom-ñeent ci muharram di ñaar fukki guddi ci tam xarit tolloog ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci septembre bi ñu ne fii ci Daaru Xuddoos